waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatuli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba o face à face Tapha Tine Boy Niang allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy cappaatuli foo nekk gaan ah Pikine lay déparé bis ah. bus yi kaar yi njaga njaay yi sereer yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëpp ay dem gars yi ah incha ñu wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaatuli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp tëlu mag di diis i ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance ñu def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofe rek naa na koy faj waaw dafa leer ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre ah. Ibomar Diop feesu fees Tafatine Boy Niang la vingt cinq novembre incha allah ñu ci woo fans yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw dix ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah. salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di am contentement ak mbégte da jën ak yéen chaque jour comme ni ma leen ko waxee dégtale leen ko rek dañuy dem seeti ndaanaan làmb bu nekk daal de toog waxtaan ak moom ci lépp lu soxal làmb fi làmb toll ak combat yi ba tax na ba ma jógee ci beneen champion dama ñëw ci beneen daanaan ñu naan ko Baye Djily Bossaré TV borom TikTok bi borom tàntax waaye dañuy waxtaan ak moom ci carrière ba balaa ñu dugg ci làmb yam dama koy bàyyi dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu internet yi ñu daal di xuus Baye Djily maa ngi lay nuyu Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu mbokk internet yu Leewtoo TV yëpp di leen jaajëfal di kontaan ci teew bi nga xamante ne teew ngeen ko mm-hmm. di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ci réew mi ak bitim réew gën kaa màgg ci nuyoo gën kaa kawe ci nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah kaddu wi rafet na Baye Djily la waaye bu ñu balaa ñu xus si waxtaan bi ñu xamul Baye Djily ko gis ci écran bi da bëgg a xam Baye Djily kan mooy Baye Djily. Baye benn xale la boo xamante ni <laughs> Mbacke est-ce que ce que ma wax la kan mooy baay Djily di la di la xam naa ni. da nga koy xaw tënk rek da koy xaw tënk rek du ko ko xaw a mate. da tënk rek. waaye en tout cas daal baay Djily benn xale la. boo xamante ni mu ngi dëkk parcelle Assainies unité 3 maa ngi juddoo Pikine ginnaaw raay euh, quartier bu ñu naan quartier daaw daaw de femme Daaru Salaam 2 à l'âge de 13 ans laa fa jógee ñëw fii parcelle doon jàng métier euh, def ko comme ni ko xale yi di defee jàng métier jóge ci jékki-jékki dugg ci ci ci presse bi sob mm. dëgër bopp xëy na ba tax moo moo tax ngeen bu lekk sama laaj tere ba sa baaraam ñu gis euh, duñ na sax yàgg nga ci yàggoo ci mais ba nga ñëw bi da ngaa percé li nga xam te ne nii mooy groupe reporter yi naka nga def ba intégré group boobu waaw xam nga Ndeye Mbacke àdduna lépp loo nekk rek li ci jiitu mooy boo amul gëm-gëm mm-hmm. jaru nga ciy dugg parce que man yaakaar naa lépp lu may dugg rek mm-hmm. damay njortu ni lii kat war naa ko mën li ci nit ñi di am war naa ko cee mën a am mm-hmm. ba tax na saa su ne li ma gëm rek mooy nit ki gëm-gëm avant tout gëm-gëm ngay am lépp loo mën a dugg nga génn ci. gëm-gëm boobu xëy na moo tax bi ma duggee ci ci ci presse bi xëy na ñu bari ñu ngi naan bàyyi jiili bàyyi jiili mais bàyyi jiili. ñu samay doyen laa fekk. ñoo xamante ne vraiment ñoo ma dàq liggéey bi foofu gën ma ko mën. mais nag wolof daf ne euh, ku nangulul nit. ah doo nangul doo nangul doo nangul yàlla. Mm-hmm. wala ku gërëmul nit doo gërëm yàlla suñu borom. Mm-hmm. tey dafa am ñoo xamante ne bi ma leen gisee ci liggéey bi vraiment ay jàmbaar lañ ay royukaay lañ euh, wane nañ ci seen bopp ba tax na bi ñu duggee rek euh, góorgóorlu nañ ci daal. Mm-hmm. Yolof Njaay di naan commencement lu day métti tubaab bi ne ko tout début et difficile est-ce que am nga ci jànkoonte nga ci ay métit wala ay difficulté ci ba nga nekkee ci liggéey bi ak léegi. waaw du ñàkk parce que liggéey bi moo nekk surtout nga nekk reporter nekk ci làmb. Euh, mbëri yu bari dañuy daw wut si la te it des fois nga xaritoog ñaari mbëri yoo xam ne sax ay adversaire lañ mhm. du ñàkk day am bët bu ñu lay xoolee mhm. mais yow mi nga xamante ne yow la ñuy xoolee bët boobu li ci njëkk mooy nga wane fulla mhm. nga wane fayda xam ne ñoom mbëri yëpp ku ci nekk bu amee ci ay njabootam la ñuy yóbbu yow tamit boo amee sa njaboot nga yóbbu bu ñu séqee li ñuy séq mooy liggéey bu ñu defee li ñu war a def jógee ci mooy loolu mais ñàkkul am na benn bés boo xamante ni dund naa ci loo xamante ni ci liggéey bi la bokk. dem di jëli mbër ñu ànd ak mbër mi bëmax la. Hmm? c'est-à-dire la nga mer moment boobu xam na rek boobu laay doog a ñëw ci affaire yi affaire yu xale nga nekk fa di jàmmaarloo yu mel noonu. mais après boo demee ba toog yedd sa bopp da xam ni ndeke yow am na taxawaay boo xam ne waroo ko taxaw. Hmm. ba tax na daal xam naa ne loolu moo ci nekk loo xamante ni mun naa ko fàttaliku. mu doon tuddeewu ma ko métti sax mu doon jafe-jafe boo xam ne du ñàkk ci liggéey ndax jafe-jafe ci liggéey yëpp lay am. est-ce que mosoo bëgg a jëli benn mbër comme ni nga ko waxee des fois nga xaritoog ñaax ñoo xam ne sax ay adversaire mosoo bëgg a jëli benn mbër di am problème ñu naan kii kii lay àndal wala kii kii lay faral. non loolu nag du am parce que man mbër mu ma siqal ci làmb ñoom ñëpp samay xarit lañ mbër yëpp samay waay lañ mais képp ku may siqal li may wax ak yow rek sama diggante ak yow lay yem. Mhm. mooy du génn sport. Mhm. parce que li may wax saa su ne rek mooy nit ki lépp loo xamante ne bu nit ñi taxawee bu ñu ne la waxal di nga ko ko ñemee wax rek du doon loo xamante ne da nga koy ragal. sama mhm. damay bëgg chaque fois mbër yi may jonkanteel wala ñi may waxanteel ñu ñeme ma. Mhm. ñeme bi ñu may ñeme nag mooy du ma fa dem di wax seen mbiru adversaire mhm. wala ma dem fa di wax waxi leneen. boo nekkee ci état boo ma laajee dinaa ne la yaa ngi ci état. boo mënee bëre macha allah ñu ñëpp xam nañ ñi mën a bëre. làmb daal yaakaar naa ne daal jafewul daal. jafewul pour ñun. suñu diggante ak mbër yi ay frère lañ dañuy jàppalante ñun mënuñoo dem sans ñoom ñoom mënuñoo dem sans ñun. lu ñu wax ak Baye Jiri mu nekk reporter duñu wax fléau wala phénomène bi nekk ci làmb ji fu mu ne nii reporter yi bëri nañ bëri goo xamante ne site yi bëri nañ bëri goo xamante des fois da ngay dañuy da ngay gis du mën a kii du mën a kii des fois da ngay gis ñenn ñi def yëfu manquant yoo xamante ne tax ñii yàpp yàpp presse bi yëpp. Mm. yow en tant que jeune lan ngay wax loolu. waaw xam nga nit ki Ndeye Mbacke balaa ngay respecté nit da respecté sa bopp ba pare. Mm-hmm. puisque munoo respecté munoo respecté woo sa bopp bëgg nit ñi jox la respect loolu mënul nekk. am na ci nag wax dëgg am na ci ñoo xamante ni xëy na gis-gis yi du doon benn parce que du ma ne dañuy dañuy def affaire manqué wala yu mel noonu mais xëy na yar yi du benn. parce que ku ci nekk bokkul fi ñu jóge boo xoolee trente personnes wala vingt personnes kiy jóge fii kiy jóge fii kiy jóge fee ñu ñëw doon équipe ku ci nekk xëy na am na doxalin boo xam ne yaa ngi koy dox. sa morom bëgg na ko doxal mënu koo doxal. Mhm. am na doxalin bi sa morom di doxal te yow doo bëgg mu doxal. Mhm. mais li njëkk mooy comportement. parce nit ki yaakaar naa képp ku ñëw ku lay respecté rek ci sa yar ci sa teggin. Mhm. lañ lay respecté. ndax mosoo dégg ñu ne kii kat dafa réew kaay ñu kii kat dafa yaru kaay ñu ngi koy dóor. déedéet maanaam ki nga xamante ne dafa wane safaan ba ñàkk a wane yar ak teggin nit ñi kenn moomu leen dañuy xam ne kii euh, respecté wul nit. wala amul nu mu mel mais ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir nag des fois nga waxtaan ceeg ñenn ñi mais xam nga rek du lépp nga mën a wax parce mhm. liggéey média la te ñun ñëpp yaakaar naa benn lañ mhm. mm. ñëpp benn lañ nag temps bi dañoo xaw tënk te dañu war a waxtaanee dafa bari fu mu ne nii ñu gis Baye Djily ci beneen anam gis Baye Djily ci beneen facette ñu naan Baye Djily wasaare Baye Djily reporter ñu tourné waat gis Baye Djily ci TikTok bi mu ñëw rek déclenché peesa ci beneen anam parce que nit ñi dañuy toppandoo ñi nga xam ne mooy artistes yi ñii di toppandoo woykat yi ñi toppandoo théâtre kat yi mais moom dafa ñëw ci beneen anam indi benn affaire boo xam dafa naturel dugg seen biir kër di indi seen réalité kër Baye Diéry noo def ba am buzz boobu ci TikTok bi. indi kay ba indaale 500 yi nga sàcc ci man tamit da koy wax indi ba indaale téeméer yi nga sàcc ci man ba suturaal la. bàyyi la ko bàyyi bàyyi koog yow. waaw tëbal 500 yi ñëwal waaw tëb naa yi. léegi xam nga loolu Mbàkke li koy wane rek mooy façon façon yarin bi nday Mbacke man mun naa composer ku ne ci àdduna loolu nag ndimbali suñu borom la man xale bu ndaw a ndaw mun naa def ak moom mag âge bu mu am mun naa def ak moom loolu nag xëy na du ma ne du ma ne xam àdduna mais yar nañ ma ci ci ci ci ci ci ci xàmmee mag xàmmee xale xàmmee rak parce que ñun suñu papa daf ñu doon jàngal que ni ñu koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam loolu tam ànd ak Euh, daf ñu doon jàngal que ni rakk day topp mag mag yërëm rakk mag topp bàyyi. parce que ñun suñuy mag dañ leen a xoolee comme bët bi ñuy xoolee suñu papa. Mm-hmm. suñuy mag tamit dañu xoolee bëtu rakk ba pare yërëm ñu am yërmande ci ñun. Mm-hmm. parce que sama grand yi boo xoolee ay Mbay Kebe Pape Kebe la mm-hmm. ñoom ñëpp samay mag lañ mais des fois dañuy yëkkati loo xamante ni di ma ko jox te xam nañ ne man am naa ko. li tax loolu nag mooy comportement bi nga leen wan comportement boobu noonu nag no maa judd fekk ñoom ñu koy joxante seen biir ma ma ma ma jël loolu ci ñoom TikTok bi nag folo rek ci biir fo bi nag da ngay lancer walla appel di wan nit ñi que ni ah, vraiment am na loo xamante ne mu ngi ci réew mi muy lu ñaawta war nañ ko mën a dindi indi lu rafet da gis ñaari jigéen bokk kër di sëy bokk benn borom kër seeni doom duñu waxante ñaari soxna yi duñu waxante te borom kër gi moom day taxawee noonu. Mm-hmm. parce que moment fu mu waxee rek dañ naan noo daa jeng daa faree fee. Mm-hmm. tey nag comme yàlla da lay dimbali ba saa su ne yenn détails yenn coow du mën a ñàkk ci kër parce que yow ñi nga bokkal ndey ak baay sax da ngay laal ak ñoom. Mm-hmm. waxuma laa ñi nga xamante ni yéen a bokk baay. wala yéen a bokk seen tànta wala yu mel noonu. ñu nekk nit ñoo xamante ne vraiment kër gu neex la ñëpp famille lañ euh, sama sama tante ñoom li ñuy dund dafa naturel. parce que sama tante boo gisee ni muy dundee boo ñëwoon suñu kër ngay xam ne li ñuy dund moo gën a naturel sax que li may wane parce que vidéo yi ci bari dama koy dagg. des fois ñoom ñaa ñu laale bëgg a dóorante des fois ba tax loolu boobay arrangé ba damay bëgg ñoom ñaar di coow. kenn xeex man li tax nga nga ñëw dugg seen diggante di leen jaxase man moo ma yëm man. moo ma jaaxal parce que ñoom ñaar ku ci nekk damaa xam li bu bëgg. maire mm-hmm. bi ci kaw dafa bëgg xaalis sama tante dafa bëgg xaalis. Mm-hmm. te ñoom ñaar ku ma ci dig dig dara rek da la attaqué sa morom rek da nga koy attaqué waaw te comme yàlla may baaxee ma yor 1500 2000 3000 koo ci dig 1500 day attaqué morom tanta yokkal xaalis bi waaw fi dal yi rek am na ñu bari ñëw nañ ci sama tanta mhm. naan ko jiili mu ngi liggéey sa kaw ak mu ngi lay yàqale la la fay xaalis ak yooyu mais damaa bëgg ñu bàyyi ju rek sama tanta sama mhm. tanta la mhm. nga ñëw jàppee ko li nga xam mooy foo doo loolu dem ba romb yow li nga xam ne yaakaaroon nga ci ñi lay gis TFM di la gis Sen TV di la gis fu nekk. Mm-hmm. ba nga ci amee succès boobu loo dara Mbacke ñun ay taalibe lañ ñun dañu yar ci judduwuñu ci milliard ñun judduwuñu ci million. mais ñun mm-hmm. dañoo judd ci yar ak mm-hmm. sa mbaba loolu la jàngal. sa mbaba li mu ñu jàngal mooy yar ak teggin. mbubb bi nga xamante ni doo ko solal sa bopp doo ko solal sa nawle. puisque ñun loolu la dund. ndax ñun. Euh, yére yi nga xamante ni saa su ne rek ku ñu gis benn wax bi ngay wax xëy na loolu doomu aadama yi ñoo koy gis ay non kii dafa yaru kii dafa baax kii dafa loolu nag dañ ko jëlee ci suñu kër mm-hmm. looloo waral tey xam nga rek yi ci bare bare di ci xew yaa ma gën a xam nañ ci rek suñuy loxo daal di dugg ci li nga xamante ni mooy combat bu mag bi am le 4 décembre combat bi diggante ki nga xam ne mooy Siteu ak Papa Sow noo ko gisee komba mm-hmm. boobu combat bu neex la combat bu neex la le cinq decembre le cinq le 5 le 5 décembre. combat bu neex la parce que Siteu xale la boo xamante ni dafa dugg ci làmb di percer bi muy dugg ci làmb ñu bari dañ doon wax naan taay bi ni mu toll. Mhm. mënul dem tuutiwaay bi. Mhm. mais dafa gëm boppam. Mhm. gëm bi mu gëm boppam moo waral saa yu ñëwaan ci signature contrat day indi slogan boppam. slogan yooyu moo ko doon topp. bi bëree naxa naxa xam na dégg nga li mu ko da wax ay lan mooy naxa mhm. naxa naxa naxa mooy lébu bu xamul dara ci géej sànni ko ay track mhm. bi muy bëree sos sànni na ko track ni ko doo cent franc mhm. bëri na fa yeneen mbër indi leen tarkindaa bi ak curkindaa lan mooy tarkindaa bi mooy ni ko ba moomu tarkindaa bi fi mu toll nii mu ngi doxee langsaar koo wax mu ne la man tarkindaa la loolu nag gëm-gëm la boo xam ne Siteu da ko indi ci làmb bëreeg ay ndaanaan yu bari daan leen parce que tey boo nee ku bëreeg Zarko daan ko bërëg jos dugg parcelle daan ko mhm. jëlaat Papa Sow am na leneen loo xamante ni bëgg nga ko wane mhm. mais day bëreeg xale boo xam ne ndaanaan la mhm. muy Papa Sow événement bu ne mbër mu ne bëri naa moom waa koy xalaat ci ndaanaan bëri naa moom bëri naa ak Baye Mandione bëreeg moom ak Baye Mandione bi mu yor pois bi mu yor mu bëreeg moom bëre bu rëy ba daan bëri naa ak jos aller retour daan ko deux fois bëreeg Modou Lo bëre bu rëy ba bëreeg Modou bu rëy ñàkk combat boobu bëre ki nga xamante ni mooy tonnerre. Mhm. mu nekkoon combat boo xamante ni. Mhm. combat la ñoom ñaar ku ci nekk da doon wane boppam. Mhm. mais teewul dafa bëreek tonnerre daan ko muy mu nekk xale boo xamante ni ndaanaan lañ. ñoom ñaar daal lu mën a xew ci làmb ji mooy Mbàkke séentu nañ fa xeex. waaye séentu nañ fa bëre. ci cappaacolo bi laa jëm le 19 décembre diggante Boy Niang borom curuxu curuxu ak ki nga xam ne mooy tafaate borom sàkkaane ndax nga gis affiche boobu. combat bu neex la. nday boo arrière tuuti mës naa toog. Ousin seet si ma ñuy waxtaan man ak moom ma ne ko làmb ji képp ku tëgg combat bu dul grand contre petit yàq nga làmb ji. Mhm. ñu bari nag moment boobu bi ma koy wax moment boobu booy ñang yaakaar naa ñu ngi doon ñu ngi ko doon bëgg a doxal moog Balla Gaye ñu naan mënul nekk. du moromam Modou Lo daa dëpp dem jëli Ama Baldé. Mhm. ñu jékki-jékki dégg Pape Thialis ñu koy nuyu de passage Leewtoo production organisé na booy Niang ak Tapha Tine. Mhm. jour boobu seen première face to face ñëwoon nañ fa. Mhm. mu nekk combat boo xamante ne yaakaar naa kuy tëgg làmb ci làmb ji. làmb ji mooy làmb ji gën a neex parce que combat jànq la. Mhm. kii bawal dañoo am ci moom yaakaar. kii mhm. Pikine am ci moom yaakaar. tafaatin dugg Pikine. am fa defet Ama Baldé daan ko. jël boobu metti ko Ama Baldé nekk xale bu ndaw daan ko. tafaatin ne erreur bi mu amoon ci Ama Baldé lay rectifier waat te biir Pikine la koy rectifier ci xale la koy rectifier mu jël booy Niang. booy ñang ne moom dafa yor kaasu fonde dafa kaasu bi faw ku ci nekk dina la tànqal jox la mm-hmm. tafaatin moo njëkk a ñëw ci poids lourd da koy tànqal jox mm-hmm. mais xam naa ni combat la boo xam ne komba bu neex la mais séntu naa ci xeex mm-hmm. ci ci avantage benn mbër mi la mais sént naa ci bëri ci avantage bu kenn ki la. ci loolu la ñuy ñëw parce que dañoo ñëpp dañoo jël xeex bi favoriser ko jox ko ki mooy tafaatin. booy ñaama seeti ko mu ne man day mbaake nit ñi dañuy naxe bu hmm. ñu jàppee ne Tapha Tine moom moom xeex bi ñu ngi wax seen bopp non damay xeex ak moom. Hmm. yow kaddu yi Boy Niang lan nga ci gis. no Boy Niang mun na xeex ak ku dul Tapha hmm. mais Boy Niang nday màkkee dafa muus ci bëre macha allah. Boy Niang xel lay bëre. Boy Niang poids boo mën a yor ci làmb mun na laa daan. taay boo mën a yor ci làmb mën na laa daan parce que moom yàlla suñu borom da ko baaxe mu am lecture. bu arbitre ne gis day mel ni ku la ragal te ragalu la mhm. boo xoolee combat moo Sa gis nga ni mu moom mhm. daf ko wan ni comme sii que dama la ragal mhm. te ragalu la aspiré Sa Thiès Sa Thiès bëgg ko jàpp mënu ko jàpp moment bi Sa Thiès fëgg dënn bi di wàccee loxo bi ak ko Boy Niang di dóor ku benn xanaa boobu Leewtoo production ñoo ko tëggoon moment bi mu koy dóor ku jege si na ko parce que mbër yooyu des fois dañu nekk mbër yoo xamante ni balaa ñu laa dóor dañ lay dañuy teg benn tànk avancé mun laa mun la mun la dóor ku bu dal Tapha nekk mbër moo xamante ni combat bi buñ ko doon digal man su ma ko doon digal ma naan ko bul xeex teewal sa bopp taxaw déglu booy Niang xaar lan la indi parce que yaakaar naa am na nu muy xeexee rek te da koy yomb. Mhm. Boy ñaar su ma ko doon digal dama naan ko effectivement xeexaloo Tapha Tine mhm. bu arbitre ne prip pied droit ngay teg moom muy teg pied gauche. Mhm. ñoom ñaar dañuy lànkaloo bu ñu lànkaloo nag xeex bi Tapha Tine mi nga xamante ni bari na làmb ñoo xamante ni pied gauche lañ lay tegal. moom faw mu entraîné ci pied droit bi ko Boy Niang di tegal ndax pied boobu daf koy jege. soo wax ci favori fi mu ne nii koo jox favori ci ñoom ñaar. ñoom ñaar ñemewumaa joxe favori ndax yaakaar naa ni boo xoolee booy Niang façon mbër yi mu bëreel Tapha Tine bëreeg ñooñu tey boo doon jox favori da nga naan Tapha mooy favori. Mm-hmm. li tax Tapha mooy favori mooy Tapha dafa daan sos. Mm-hmm. Boy Niang sos daan ko. loolu rek mën na leen tàqale ci làmb. Mm-hmm. tey yoo xamante ni. xëy na génn na ci ñoom mais Tapha jotul bëre ak ñoom. Mhm. kon Boy Niang mu ngi doog am poids lourd bu ñëpp yaakaar ci làmb ni war na mën a wane boppam moo tax ñëpp dañ koy xaar mu wane boppam. làmb ji am risque bu ñu doon xool risque bi ci kan nga ko yaakaar ñoom ñaari bëri ci. non risque bi amu ci Boy Niang amul risque parce que booy Niang jël na tafaatin Tine war a bëriwaat beneen combat. di la fàttali Boy Niang ci défaite la jóge contre la guerre. contre Lac de Guiers 2 waaw d' accord Boy Niang ci défaite la jóge mais Tapha Tine ci victoire la jóge mhm. kon xam nga ñoom ñaar fi mu toll nii Boy Niang ci erreur bi mu defoon ci Lac de da ko bëgg a rectifier moom ci Tapha li mu bëgg a rectifier mooy Boy Niang faw mu won ni Tapha dama laa dama ragaluma la te dinañ taxaw xeex mais jàpp Tapha Tine jàpp Boy Niang du gaaw en daal xam naa ne bu fekkee favori day am ci làmb ji mhm. ah man de dinaa jox Tapha Boy Niang mystique la yaakaar ci làmb ci loolu loolu nan nan la nga ci wax ak loo ci gis. man na gisuma booy Niang benn komba bu mu daan mu am mystique gisuma ko komba yi mu bëre yëpp jom lay wane fulla lay wane fayda lay wane ba daan. Mhm. diggante moo Garga Mbossé stade Demba Diop la woon. Mhm. keroog ñu bari jàppoon nañu ne Garga bu ko jàppee làmb ji jeex. Mhm. mais gis nga dafa woo Garga Mbossé kenn daa ko xeex ci làmb ji. daf ko woo ci xeex. tuuse Garga Mbossé dóor ko coup bu dal. ñu daw jàppante ñoom ñaar Garga Mbossé di jël tànk bi mu samp bopp daan ko jël bu rëy bëri na xoolal diggante ba saa kajoor poids lourd bi saa nekkoon ni mu ko daanee booy ñam loo mën a dégg mooy Ndeye Mbacke ndaanaan la ci biir ndaanaan dama lay jox ñett nga tasal ma leen ndax temps bi ñu yorof ñoo xool tënk Mansour des sin rek mais dina baax hmm. dañuy xool technicité hmm. li nga xam ne mooy bagarre hmm. ak mystique boo waroon tas si ñoom ñaar koo koy jox euh, booy ñang am na mystique de lu leer laa la booy ñang am na mystique de booy ñoom am na mystique am na technique. bagaar boo ko doon séddale noonu la koy séddale. Tapha Tine moom vraiment bagaar bi moom moo ko moom. technicité nag maanaam bi déggoo li ma bi ku ci nekk bokkuñu façon bi ñuy bëre. Tapha Tine la boo xam ne ku mu jàpp da da ngay jóg. cest yàlla suñu borom moo ko defal fort boobu te day mbot Tapha Tine day mbot tànk bi boo koy jël mu yëg boo ñëwee dalay lay déclencher mbot. Mhm. bu la wëree ndomba wala mu jàpp la. dalay lay taf bu jàppee sa ngemb da lay taf sa dënn zongale teg la siis dóor ci suuf. parce que boo xoolee noonu la daanee booy sëy boo xoolee moo Yékini Junior da ko wër ndomba buddi ko ba ci kaw arrêté ko dóor ci suuf euh, bi muy bëriwaat ak Yékini Junior bu mujj bi da ko mbot hmm, mbot bu rëy moo mbot mbot bu rëy moo lay wan ni moom it foo ko kupp day baatare hmm. booy ñan tamit naan la ci bëre moom noonu la mel booy ñang kenn xamul kenn mënu ko kenn mënul xam fan lay génne li père Maxime Bargane naan mbër des fois nga séentu ko ci fetal mu fitt hmm. des fois nga séentu ko ci fitt mu fetal moom noonu lay def saa koy xaar Boy Niang du fa génn. Mhm. fi ko dul xaar rek lay génn. ci question bi may tëjee nag mooy lu ñu gis ñoom ñaar heure bu ñu daje nañu Joal ñu ngi fa woon daje nañu fi nga xam mooy soo maanaam TFM. indi fa bagaar bu rëy rëy ñoom ñaar heure bu ñu dajee seen di mais seen jàmmarloo yow en tant que porteur de voix ban message nga ne di lancé. non bis bi nag moo tollu noonu bis bi moo toll noonu parce que yaakaar naa ku tëgg Boy Niang tëgg Tapha du ñàkk coow di am ci seen face to face seen daje yi nga xamante ne ñu ngi koy daje. mais dañuy lancer appel rek ñi nga xamante ne ñooy supporter booy Niang parce que Boy Niang bu ñu demee ba jël ko ambassadeur non violence du caaxaan. buñ ko ko fale képp kuy jóge Pikine keroog di ñëw ci làmb ji war wane bon exemple. Tapha Tine tamit ñu ko koy wax. parce moom doomu Medina la waaye doomu Bawal la. bu déplacé wu mbooloo bu bari dañu koy topp. moom it mu sensibiliser ñi nga xamante ne ñooy ànd ak moom. ñu xam ni ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. kenn ñàkkul Tapha Tine ñàkkul ay soppe biir Pikine booy Niang ñàkkul biir ay soppe biir Bawal wala biir Medina. kon làmb moo leen boole. Mm-hmm. ñuy lance appel promoteur bi tëgg làmb ji rek di Pape Thialis mesure bu mu ci mën a jël pour sécurité doyul. Mm-hmm. parce que bis bee toll noonu. Mm-hmm. en plus ñuy bëree biir Pikine koñu Boy Niang. ñuy bëree biir Pikine kon fi mu toll nii mën nañu Boy Niang à domicile lay bëree. te bëre à domicile gis nga moog la tegee deux ni mu defoon stade bi mm-hmm. te xam nga ni pikit ñëpp dañuy génnaan ndax dañoo namm booy ñang càppaa colim mm-hmm. su bëree mu neex su bàkkoo mu neex mm-hmm. xale bi dafa waane dafa dooj mu nekk komba boo xamante ne la xam naa ne képp kuy ñëw ci làmb ji ñu ngi lay woo ci jàmm ak salaam ndax jàmm kat moo gën or moo gën jamaa jàmm fi muy jógee du fa jeex waaye fa muy jëm du fa doy Mm. kon yàlla na yàlla def jàmm. ci dañ koy kontaanee bu baax a baax jiiri wasaare la woon dañ koy bàyyi mu tàggatoo ak internet yi looy tàggatoo bay bàyyi jiiri. tàggatoo reporter yi ak mbëru làmb yi kan nga ci génn waxal loolu. génn maa reporter génn maa mbëru làmb. benn mbër jëlu la. dafa waaye bul def loolu. mbëru làmb yi kenn jëlu la kenn jëlu ma ci. ñu bëgg a ñëw. du ñu ñëw man du ma génn ak ba du ma génn reporter. adduna daa gudd tànk de. maa ko wax. da dem faar de. du mën a vaal ji tëjal ñu <laughs> dem suñu mën nga maa jax sax nit ñi lool. ah baax na maa lay jaajëfal man chauffeur yi laay génnal daw ko oto yi. ah kon baax na chauffeur yi de moom macha allah moom. bul la ñoo dawal daw ko car rapide yi dawal bul la ñoo dawal de ak <laughs> ma leen di béggee bu baax a baax Màkke di kontaan ci ci ci daje bi. ci teew bi di gërëm bu baax boutique boutique bi fi nga ma fekk. sëñ Fallou euh, Lunette di kër sëñ Fallou Lunetterie mhm. doon koo xamante ni vraiment euh, Mbaye Kébé kenn la ci man nit ku baax. suma mag la mais nit ku baax. nit ku rafet xol nit koo xamante ni vraiment alalam du ko booleek doomu aadama. ñu koy ñaan rek lépp lu mu bëgg ci bërëb bi yàlla kawel ko defal ko ci lu kawe njortam. ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di wax Sénégal képp ku bëgg verre yu rafet. nga am ordonnance ak nga bëgg verre yi nga xamante ne mooy photogré wala verre boo munti bëgg. yor la qualité daal lépp loo ci la ko wax xool li ne lunetterie Kër Sëñ Fallou mu ngi nekk parcelle Assainies ci tali bu bees bi boo duggee rek mu ngi foofu xam naa Mbacke dina jox numéro bi parce que numéro bi foofu ñu jàllale ko waxtaanu géwël lu mu leer leer xam naa ne ci mbay ma lay mujj ah du ñàkk <laughs> jarul dem jarul dem service commercial di jaajëfal ñëpp mm-hmm. waa Leewtoo di wax Leewtoo sama kër la mm-hmm. di di siyaar Pape Thialis bu baax sama sama waa ji mm-hmm. moom nit ku baax la nit ku rafet xol la ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla defal ko jàmm ba lépp lu mu bëgg ci journée bi yàlla defal ko ci lu kawe njortam di bëggee bi Mansour sama waa ji kenn moom moom dafa baax sama njool mi sama xam dama ko bëgg Modou Mané mhm. ak soxna Umulaay Maxtaar Laay Maxtaar maa ngi koy bëggee bu baax mhm. di jaajëfal ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon seetaan Leewtoo TV tantak naa nag naa ak tanta chaque jour ma gërëm leen <gasps> mu ngi noonu nag bàyyi ji la woon borom wasaare TV borom wasaare bu waaye borom TikTok bi dama koy bëggee bu baax a baax comme ni nga ko waxee ki ñuy fekk si nag mooy Baye mbay Mbaye Mbaye dañ koy bëggee bu baax ndax moom da yor dañuy yor suñu fukki junni dem këram lekkal ko 2000 am mu nangu muñ uuf ñu xam ne mu uufe njaboot ay raxam dañoo sikk mun nay muñ waaye joor faal madame Kébé kenn du yow borom réer yu neex yi dama lay bëggee bu baax am naa jii dafa saalit moo tudd la noonu laay def comme ni ma koy defee toujours dañuy dem seet beneen daanaan kon dama leen jox dig daje ëllëg beneen daanaan waaye sama bi kenn du ñoom damay bëgg ci yéen bu baax naa leen jàmm ci yéen Cheikh Mbaye Kébé sama papa mon papa d'amour dundal dundal ba doy loo bëgg yàlla yaa xam yàlla na la ko yàlla defar ba beneen ñoom ci beneen daan ak beneen waxtaanu làmb incha allah. waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatoli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le cinq lay doon le 25 novembre stade Iba Mar face à face Tapha Tine Boy Niang allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy foo nekk gànnaar Pikine bus yi kaar yi njaga njaay sareet yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëppay dem gaay ah incha wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaaculu yëpp yëpp yëpp yëpp baawuñ kenn Pikine gi yëpp tëlu beer tëlu mag di di si ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah bar barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak seraam gars yi ah ñu dem def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofee rek naa na koy faj waaw dafa leer. Ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le vingt cinq novembre ah Iba Mar feesu fees tafaatin Boy Niang le cinq novembre incha allah ñu ngi ci woo fans yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw dix ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha